ak commune Mboro alors euh, commission nag liggéeyam mooy képp ñi nga xam te ni ñenn ñi nga xam dañu bëgg liggéey MTL bu ñu déposé seen dossier foofu lañ koy jaaree ci commission boobu alors que ñun dañ jàpp ni loolu euh, dafa violer la constitution euh, notamment article vingt cinq bi wax ni ci wàllu xëy waruñu beddi kenn mu ni également koom-koom yi nga xam dañ nekk ci Sénégal Sénégal yëpp ñoo ko bokk su ko xoolee bi ñun dañ jàpp ni benn commission boo xam moom moo def ak seen li ñu jàpp mooy MTL dafa war a mel ni ICS dafa war a mel ni Dangote dafa war a mel ni Sococim c'est-à-dire képp ku bëgg liggéeyee da ngay dem directement ci ressources humaines nga def say dossier ñoom nag ñu xool lan la ñuy def. kon da nga gis ne si liggéey boobu dafa am lu ñu mel ni dafa am ñoo xam ne dañu leen a botti xool. évidemment je vais donner l'exemple d'un camarade bu dëkk fii Tivaouane suñu koñ. moom récemment il m'a expliqué que ni dañ ko bëggoon a woo affaire contrat mais dañ ko lii léegi pour loolu mën a am il faut commission bi mais moom nag mu mu yaakaar ne bu demee ci commission bi euh, xëy na dañ koy beddi raison pour laquelle euh, jotul dem ci commission bi ak am na yenn exemple yoo xamante ni incha allah buñ ca tolloo dinañ leen woo ñoom aussi ñuy def ay euh, témoignage man mii di wax ak yow par may nekk université Gaston Berger di jàng bëggoon naa liggéey MTL comme journalier wala leneen mais ba tey ji ne loolu sotti tey jii lan mooy seen taw ak wala lan nga xamante ni moo leen naqari ci mbir moom. waaw li ñu naqari ci mooy li ma wax léegi cest à ñun li ñu bëgg mooy euh, MDL mel ni ICS c'est-à-dire nit ki foo jógee Sénégal boo jógee Saloum boo jógee Fuuta ak foo mën a jógee soo ko bëggee journalier nga journalier ko soo ko bëggee stage nga stage ko soo ko bëggee liggéey nga liggéey ko euh, li muy amee mooy nga déposé ci domaine. bu ko defee ñoom bu ñu jël jël bu ñu la jël comme dans les entreprises ñu xam ne yow jëluñ la mais bëgguñu benn commission boo xam ñeenti commune ñoom ñoo ko constitué di def sekki te dañuy ragal ni nit ki bu ràccee jëmale booram mën na jàng loolu lañ ci ragal moo tax demandé monsieur le préfet du département de Tivaouane euh, depuis lu ëpp weer ni ko te ñu lay demandé comme yaa représenté état mu commission mu tas ko bu ko defee MDL mel ni ICS mel ni yeneen entreprise du parce que alal dafa nekk ñu zircon ba Sénégal yëpp ñoo ko bokk loolu la constitution wax merci Mayel yaa ngi fii ci Ecotive euh, groupe Damel kon gis nga ni euh, MDL dafa am bon di xonte évidemment te bon di xonte bi mooy mënuñu jàpp Tivaouane département nekk commune ak juróom-ñett ñeenti commune créé benn commission depuis 2015 commission boo xamante ni képp koo xam da ngaa bëgg a déposer say dossier ci MDL commission boobu ngay jaar wala ku ñu dañ jàpp ni commission ku fa jaar ñoom bu leen neexee mën nañ tànn seen i doom ñu ne ñu ñu ñu daal leen bàyyi alors que MDL dafa am lu ñuy wax ressources humaines c'est-à-dire benn benn pàcc boo xamante ni ñoom ñoo war a gérer dossier yi ñi nga xam ne dañu bëgg liggéey foofu. mais ban message ngay lancé à l'égard des politiques par rapport à cette cette fléau là. waaw message bi mooy ñun bind nañu monsieur le préfet bind nañu monsieur le commandant bind nañu monsieur le commissaire na nañu monsieur le maire madame la présidente du conseil départemental euh, honorable député Yaya Diallo Diop si. comme ñooy suñu kilifa te ñun bind nañ leen ñu ngi leen demandé ñu tranché xool waa Meewaan ak waa Mboro ak waa Taïba Ndiaye ak waa Darou Koudou ñoom ndax def ñoom su loolu la ñuy demandé parce que ñun dañu employé ce qu'on appelle la voie diplomatique mooy waxtaan parce que olof nee waxtaan ci la lépp xaj donc comme bind nañ leen en tant que vraiment ñu leen demandé à ce que ñu jéem a tranché débat bi pour que mbir yi leer. bi ngeen bind ba tey am na répondant. waaw booba léegi aussi ñu ngi euh, daje ak euh, yenn kilifa yi parce que adjoint euh, préfet toog na moom. ci le commandant de la gendarmerie toog na ñoom moom adjoint comté toog na ñoom moom. même sous préfet Meewaat aussi toog nañu ak moom waxtaan ak moom mais ba léegi mbir mi amagul saafara. kon tey jii bu ñu demee ba nga xam ni commission boobu tas nañu ko yéen ndaw ñi nga xam ni da ngeen di tas loolu seen tawat la di tawat askan wi fan ngeen jëm ak waa MDL. waaw ñun euh, amuñu problème ak MDL parce que MDL depuis 2018 mu ngi jàppale étudiants Tivaouane di leen may ay subvention yemuñ ci loolu seen directeur monsieur Daoud Dieng euh, diggoon na euh, waa Tivaouane ni dinañu may bibliothèque pour élèves ak étudiants yi. ak ay bourses d'excellence pour les meilleurs élèves euh, euh, primaire collège secondaire mais également euh, ay travaux journal ak ay stage mais boobu léegi mbir yi gisaguñ ko mais am nañ yaakaar ci ni incha allah comme digale woon dina ci def lu mu mën donc bu fekkee ne mbir sortiwul incha allah dinañ toogaat waxtaan comme bi ñuy bind kilifa yi dañoo def waxtaan bu sottiwul incha allah dañ toog waxtaan xool nan la ñuy doxalee. ban message moo ciy gën a fort boo leen di lancer direct président de la république. waaw monsieur le président de la république vous euh, qui êtes le président de la république des euh, mën naa sax ñun suñu Sénégal wala askanu Sénégal ñoo lay ñaan di la demander parce que yow yaa suñu kilifa ak problème bi nga xamante ni dafa xew ci département Tivaouane ngeen arbitrer maanaam ngeen xool lan la ci yoon wax ngeen def tënk ci yoon ba tax na lu yoon àtte rek kàddu dégg naa ngeen di wax euh, collectif bi muy di déclaré li nga xamante